asalaamualeykum suñu mbokki internet yi maa ngi leen di seer baax di leen nuyu di am kontaan ak lool jàkkaarloog yéen seen chaîne bi nga xam ne moom mooy Mbe TV waaye émission bi nga xamee ni moom mooy ci àdduna àdduna nag yàgg naa ko wax ne lu nekk ci biir kenn ku ne ci yéen war na ko bàyyi xel tey nag ci li nga xam ne moom moo fekk day xibaar bu jëm ci mbiroom ay nit yoo xamee ni seen liggéey mooy fexe ba nax doomu madama jël alalam ak na mën a toll ak lu bari bari ndax jigéen nga ni boo xam lu toll ci blindé 11 millions yoo xamee ni daana ko jël nañu ko moom ca biir këram som gu bari bari la tax mu ne som gu bari bari damay faral di wax ni bàyyi leen yéen jigéen ñi rawatina faatu faatu yi rawatina muudu muudu yi toujours ma wax ko bu ma waxee rek dafa mel ni dafay gën a yokk ndax ñi ma koy kalaame dafa bari wax naa fi ne sa téléphone saa boobu jëlee nga woo sëriñ ne ko man la diw ak diw ak diw maa ngi place tel dama am jafe-jafe wu ak nangam ak nangam nga yëkkati sa tur jox ko teg sa sa sant yow xam nga ni balaa moo liggéey kenn yow lay njëkk liggéey bu nopp ndax yow yaakaar ne yàlla ngi tudd diw ak diw ba noppi nekk nga ne ko maa ngi Amérique wala maa ngi Allemagne waaw moom balay liggéey yow sa soxla bi nga ko war a fay mille cinq cent francs CFA wala dix mille dana la liggéey ba nga ne code yow bu la laajee million nga jox ko ma wax fi ne ni fii doomu aadama du rey mala mukk lu dul ne muy farata ci moom ay yàlla daf ko araamal ci jullit kenn du rey mala lu dul ne ngay farata ci yow bàyyi leen sëriñ ci ngeen di déglu ñu leen di rayuloo ay gëléem ak ay nag ak ay xar lépp lu leen ci rayuloo waxuñu dëgg mais dafa mel ni man su ma waxee wax ba du am njariñ suma ma sama téléphone bi bëgg xar ndax kenn ku ne di ma wax ñaata millions yi dépassé ci ay sëriñ xam nga toll ci onze millions et quelques nga jël ko di ko jox sëriñ ci un million mille cinq cent juróomi xar dem ba sëriñ bi di ko rey loolu toll ci ñeent fukk ñeent fukk ci ay béy mais loolu mais xam ngeen loolu du dëgg. bàyyi leen sëriñ ci nga xame ni da leen di woo téléphone xamuloo sëriñ bi da nga koy woo téléphone mais ki nga ne man maay diw ak diw ak diw ak diw mais yow koy wax ko sa bopp kan ngay fay deux millions trois millions muy fanaan ci der ngir yow amul amul ku la ko wax waxul wax naa fi ba tey ne doomu aadama ci jullit na dem mu référé wu ci alxuraan koo xam daf leen ñaan ci alxuraan mais baax na mais xeetu rey xeetu suul xeetu béjjén defal nangam dara du dëkk ngir yàlla ak yonent bi yéen ñii faatu faatu yi bàyyi leen sëriñ si chaque jour nga dégg faatu faatu bu ne jox naa sëriñ sept millions dix millions te su ma ko woowee du ko jot ba nan nga tukkee dem bitim réew bu liggéey moo la fa yóbbu nga dem jël sa dund yaakaare ko sëriñ bi ne Sénégal fii mais kon yow mën ngaa ñibbi ci ci réew mi toog fi ndax bu dee nga mën fee am bu dee yow li ngay am yow bitim réew ci wërsëg ci alal fii nga ko yaakaaree ñu liggéey ko fii jox la ko pour nga am wërsëg kon mën ngaa ñibbi si fii te xam ne fii la sa wërsëg nekk jaam day gore nit day sant suñu borom. yàlla defal la lu mu def defalul say moroom jële la fi yóbbu la bitim réew ñu ni waa déet mu may la liggéey xëy a gont mais lan nga bëgg wërsëgu 2030 mënoo ko am 2020 loolu c'est impossible mënut a nekk wërsëgu 2030 kenn mënu ko am 2020 bis boo ko amee doo fanaan wërsëgu 2025 kenn mënu ko am 2019 bis boo ko amee doo fanaan da ngay dee kon nanu dal te tey liggéey te doyloo seen wërsëg fël yàlla yem loo ngeen fa faa yem ngeen def ndànk te teey te xam ne loo amul seen moroom am na ko loo leen am ni da ngay ne sew bu ko am jaam bu dul doyloo yàlla nekk du sa am bu dee loo am doo sant sa borom danga koy xeeb di wuti leneen ba di ci boole leneen di bokkale sa borom la nga am danga ko pett te loo yóotu doo ko jot ndax danga bokkaale sa borom dem leen ngir jaamu ju seen borom dem leen ngir jaamu ju seen borom wax naa fi ba tey boo leen yeewoo jàng leen seeni saari alxuraan soo jullee yeewoo jàng sa tuyaasi teg ci isaa waxaatile waxeetu refeerewul ci alxuraan te noppi te dem liggéeyi liggéey mooy tax jaam bi di am alal bu lew te barkeel ndax bari la amul solo li am solo moom mooy barkeel man nekk solo naa lool man di wax ci yaay faal yeeg muudu muudu yeeg faatu faatu yi ngir yàlla ak jim yenent bi bàyyi leen sëriñ si ngir yëkk seen alal di leen ko jox du leen ci am mukk li ngeen bëgg bàyyi leen ko bàyyi leen ko te duñ ci am ndam ko émission ba nekk loolu moo ko tax a jóg mooy laayant biir bi ñu laayant biir jullu ma ci xaste jullu ma ci dara li ma jublu mooy ngeen yeewu am xel te liggéey doyloo seen borom numéro boobu nekk nekk ci bande l'écran bi man mooy sama numéro saa bu leen ya, ci wootee rek dangeen ma mën a jot na ngeen na ci seen bi ndax dana nekk loolu seen njariñ ndax da ngeen ci dégg yi leen taxal leen tax a avancé jërë ngeen